la fa ambatee bi ñu ko boolee man am naa cinq cent quatre-vingt-quinze voix moom mu am cinq cent deux voix kon rawe na ko quatre lii mi ngi nii chiffre yaa nii yéen ñëpp Sénégalais yi ngeen xool ko léegi nag li may laaj autorité administrative yi ko laaj cour d'appel di ko laaj ñi nga xam ne ñoo saytu élection yi di ko laaj ministre intérieur di ko laaj gouverneur de la région ak préfet ndax bureau yu ñu dóor sa mandataire toj boppam ba mu nekk comment ñu génn say say représentant génn say mandataire toog di wateel seen bopp ñoom ci seen bopp ndax bureau yooyu même bureau yooyu bi ma nangoo benn bureau bi nga xam ne moom lañ yónnee su préfet ci guddi gi ni ko biir deux cent trente cinq waa la fi am xaadim am ci cinquante cinq waa ma accepté boobu bureau donte samay mandataire si yewuñu ko xam naa ni maa ko gañe bureau bi nga xam ni jaarul ci sous amul PV signé wuñu ko fan la bureau boobu jaar ba ñu mën a dem atte ni Khadim Samb maire sortant bi rawee na ko juróom benn xob te maire sortant bi ak ñoom dañ war a déggoo door a wax mais yàlla moo leeral mais sortant bi def ne 118 parlementaires mais ñi saytu élection yi organisateurs yi bi ma leen woo ci guddi laaj leen verdict bi daanoo avantière dañu ma ne six xob la la rawe loolu daal la donne def di balu ñëpp àq di baal ñëpp àq di balou Sénégal àq di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm yàlla def ci dal di féliciter communauté neg bi di féliciter ñi nga xamni ñom la andal muy sumay collaborateur bëgguma lii su ma limee dina djou waye ma ngi ndokkeel Serigne Ibra Mbacke Serigne ma ngi ndokkee Serigne Ibrahima Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ ak Serigne Cheikh ak rakkam ak domam ndokkee li mboolem Serigne si nek ndokkee Serigne Babacar Sy ndax njaboot bi genn la di wax itam né Serigne na nañ ni la wa di déroulé li mo fa xew li mo am di dess man ma ngi top sama nit ñi ñu gaañ ci hôpital yi pour mën a fay ñu faj leen ba génn ak li ci dess moy recours bi déposé nañu ko lundi à 14 h ci cour d'appel Thiès maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ñëpp àq di ñëpp àq di wax ni maa ngi gërëm ñi ma àndal. seen ak doonul ci ñu investir la wala ñu taxaw takkal la bànn bi commune bi xam nañ ne gagné na gouverneur ci boppam ak préfet su préfet lii ma leeral su fekkee lii leerul ci ñoom ak li ko wax ci wàllu àtte bureau yi dóor nañ suma nit cour mu daanu ñu génn sumay mandataire génn sumay représentant dem mateel seen bopp jël benn bureau jaarul ci sous-préfet ñu dem yóbbu bureau ba xamuñu fuñ ko yóbbu pendant deux jours ba avanceer ñu toog ba min ni ci guddi ñu génne ay résultats ne xaadim Pape Salam gañee na ko juróom benni waa loolu man duma ci wax yoon wóoru naa sama futur si maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm président suma xarit di ko ñaanal yàlla li mu bëgg ci réew noo ko xam yàlla na ko yàlla defal di gërëm nag autorité administrative jërë ngeen jëf di gërëm taskati xabaar yi yéen ñëpp maa ngi leen di sant parce que liggéey ngeen liggéey bu rafet liggéey ngeen ci njub liggéey ngeen ci ngor liggéey ngeen ci maanu maa ngi leen di ñaanal yàlla ndax ci lii ngeen nekk nekk naa ci presque vingt cinq ans trente allahuma salli ala sayyidina yéen a ngi ànd ak seen portail Média nekk fii ci Mbàkke Bawal gën ci am bépp actualité ànd leen ak seen portail Paul Media, di premier portail d'information générale fii ci région bu Diourbel Paul Media xibaar yu te